mbokk yeeg xarit yi nga xamee ne dañoo safoo di seetaan seen télévision Tactic Info asalaamualeykum tey nag seen émission du dëgg du yoon daf leen indiloon benn mbir bu doy waar entre wujju mbir bi nag mi ngi xewoo sa Chine si benn marché ndax nagu jàlloo moom ñaareel la dafa demoon Chine pour jëndi marchandise man Binta ndooy moom mooy aawam xaarul ba mu ñëw te dafa dem ba Chine fekk ko fa nee na pour defante ak moom na Nabou Diallo nag si li mu nettali daf ne moom dafa duggoon si benn magasin ndax xamul woon ni sax Mame Binta Ndoye wujjam bi ñëw na Chine dafa duggoon si benn magasin di jël ay photo si ay article yi nga xam ne daf ko buggoon jënd pour indaale ko waaye bu mu génnee magasin bi rek dafa dajante ak aawam bi awam bi nag Mame Binta Ndoye dafa meloon ni bi mu ko gisee dafa meloon ni lu jëfur ndax naka mu gis ko rek daf ko commencé di ko attaqué di ko saaga di ko wax wax bu ñaaw bu nekk dem na sax ba ne ko yow danga ñëw Chine di jaay sa bopp ndax ñëwuloo fi defuloo fi dara loolu ñëw fi di fekk ay di fekkante ak ay góor na bu jàll nee na waaye moom loolu yëngalu ko ndax bi mu déggee loolu tax ko mu retourné dafa dem yoonam rek topp yoonam pour dem si benn restaurant bi nga xamee ne si bopp koñ ba am na benn ay sénégalais yu nekk foofu yu am benn restaurant waaye nag bi mu sonnee si wax ba dafa tourné jël appareil téléphone am naan day filmer wujj bi Mame Binta Ndoye kooku nag dafa mel ni moom la loolu la doon xaar ndax naka mu ko commencé filmer rek mu daw song ko di xeex ak moom jël loxo bi rek matt matt matt matt matt ba mu dagg te daggit ba nag kenn mujjewu ko gis ndax bi bi ko nit ñi jëlee yóbbu ko hôpital médecin chinois yi moom docteur yi moom dañ ne ñoom kii mënuñu faj kii bi ndax amul amul euh, gisuñu dagg-dagg bi waaye nag ñaareel bi moom mi ngi matt wax ni moom carrément dina fayu lii nag day tax ba jigéen ñi nga xamee ne amaguñu jëkkër te to toll si age bi nga xamee ne dañu war a am jëkkër dootuñu nangu di sëyat ak ay góor bi nga xamee ne dafa am ay jabar yu bari léegi nag laaj bi moom mooy est-ce que wujj jar na lii ba beneen yoon ci seen télévision Tactic Info